comme ni ma leen koy tàmm waxee rek yàlla daf ñu nattoo opposition boo xamante ni dañoo jël fenn rek bokk ak moom ndey ak baay xam ndax yéen a may jox nopp bu baax bi sama gars yi maximum de kër s'il vous plaît. opposition bi nekk Sénégal du ma ne nag opposition bi yëpp parce que am na opposition buy béy waaram comme opposant yu démocrate ñu ngi si biir réew mi mais opposition bu bëggul Sénégal bi dañoo jël fenn rek bokk ko rek. di ànd ak moom di wéy boot ko yenu ko bokk ko uuf ko képp ko fen rek dinañ ñëw si Barthélemy Diaz ci fenam yi tooy xepp yi mu tooy euh, yi mu fen démb ci émission bu mu doon def di naan day nappe amul ku muy napp ku dul président Macky Sall bi nga xamante ni moom en personne wax na ko buy dugg kër baayam ca kër Jean Paul Diaz du fa wax parce que teraanga bi Jean Paul Diaz am tey président Macky Sall moo ko defaral ñu di tudd rek ndeysaan Jean Paul Diaz sunu papa jooju mais mënul ñàkk souvent ñu siy wax Barthélemy Diaz pour mu xam boppam tey Barthélemy Diaz buy menacé warul mën a menacé ku tax tey baayam rek xaw ma ndax dégg ngeen jox ngeen ma nopp bu baax bi fii reewande jaru fee jaay nit ki booy jaay nit reew bul jaay réew koo xamante ni sa baay bu dundee tey moo tax sa baay bu tabaxee tey kër moo tax sa baay bu dawalee oto bu rafet tey moo tax tey Jean Paul Diaz oto bu rafet bi muy gaare buntu këram président Macky Sall ko jox ceeb saaku ceeb bu ko faatee buntu këram weer bu dee président mak Sall moo ko fay kon Jean Paul Diaz tey waroon na mën a wax doomam sa réewande bi réew ko nga génne si kii parce que tey boo fi lekkee ceeb mu neen kii a tax dinañ wax nag bi ñu gis reewande Barthélemy Diaz dañuy gis reewande Kaliphone parce que dañu ne Kaliphone warul waxee nii te Barthélemy Diaz di toog si tele bi di waxee nu mu ko neexee devant tous les Sénégalais di jaay xamadi te warul mën a jaay nit ñi xamadi parce que démb ma ngi fii dafa def njombe dafa faat nit lu sa àdduna neex neex neex buñ la defoon sax président de la république ngay costume nga am junni nit yu la fan te mu leer la leer yàlla tribunal dala condamné da nga faat nit jàppal ni boo deewee bu neexee sunu borom sa kër safara lay doon raté woo faatu Ndiaye y a même pas deux minutes ba ma commencé ñun dañu duñu neexal mbir yi man bu may fan damay fan nit ku sell bu may fan damay fan nit koo xam ne nitu yàlla la mais du ab faatkatu nit may ñëw naan dama koy fan mais Sénégal moo bëri hypocrite tey da ngay jékki ñu naan Kaliphone da war ñu ko invité plateau parce que saaga kat la et pourtant ñu ngi invité ay raykatu nit ci ay plateau ñu ngi invité ay raykatu nit ñu nekk assemblée nationale ñu ngi invité ay violeur ci ay plateau ñu ngi gis ay nit ne ñoom dañoo gëm violeur bi te ñun ñëpp xam nañ ne violeurs yi ci biir Sénégal bu buñ ñee ñan ñooy violeur dinañ tudd ay tur duñu tudd turu Kaliphone du ñu tudd turu benn nit bu nekk ci mouvance présidentielle da ngay dégg ñu tudd turu Ousmane sonk dafa dafa violé ba mu leer nañ te loolu day des ci analyse day des ci archive ay nit ñëw ne ñoom kii violeur la mais bëgg nañ ko ay nit ñe ñoom kii naankatu sàngara la mais bëgg nañ ko ay nit ñëw ne ñoom kii de rey na nit ba tribunal ne ko tëj ko ba pare teg ko na fay ndàmpaay xam nga comme ni ma leen waxee tey bu ñu jàppoon Kaliphone yóbbu police wala ñu jàpp Kaliphone yóbbu gendarmerie fii yóbbu yóbbuwuñ ko tribunal ba tribunal àtte ne Kaliphone li ñu lay toppee yaa ko def lu ñu naan présomption d'innocence foog naa loolu la bu ma juumul gars yi jàng nañu. Barthélemy Dias bañ ko jëlee yóbbu ko police police ne moom moo faat def enquête police ne moom moo faat ñu yóbbu. def mandat dépôt fii ak boobu yëpp kenn mënul woon nangu ne moo faat fii ak sunu juge yi nga xam ne dañoo jàng justice waat te duñu ne njaaxaanaay leen tëddee àtte guñu ba juge yi àttee ñun ñëpp dañoo dégg juge yi ne Barthélemy Diaz lii ñu lay toppee yow yaa ko def dëgg la yàlla sunu borom bëgg Kaliphone waxu ko Mamadou Ndiaye waxu ko Daouda bëggu ko mais Sénégal moo bëri léegi ay nafiq ba duñu wax dëgg bu doon man maa taxaw ne Barthélemy Diaz rey nga ñu ne Kaliphone waxoo dëgg parce que doo juge doo procureur doo dara dara leeru la si enquête bi xamoo nu mu demee wala beneen nit mais ñun suñu ay magistrat yoo xam ne ay nit yu jàng am seeni i lijaasa waat seen i waat toog si tribunal bi ñu leen di xàndil ñu andi leen ay malfaiteur parfois agresseur ñëw ñu jugé ko ne yow li ñu lay toppee yaa ko def parce que dañ ci am preuve parce que boo xëyee tey rek yóbbu benn Californie police ne daf ma agressé police day ñëw yóbbu Californie tribunal. tribunal nag day sikkandiku ci ay preuve yu wane Californie moo agressé buñ koy tëj daal di koy tëj buñ demee ba xam ne li ñu toppee Californie du moom ñu ne ko ñibbil mais Barthélemy Diaz ba ñu defee enquête. dem def reconstitution des faits bañ ko jàppee delloowaat nañ ko mairie ne ko mbir bi nan la demee mu ne ay nit ñoo ñëwoon pour songu ma ba ko nit ñi songoo nit ñi yëpp gis nañu ñii ay yet lañ yor ak yeneen gisuñu kenn ku génne fetal moom képp lañu gis mu dóor ay fetal ñeneen ñi ay xeer lañu yoroon ba mu ko defee ba pare def na journal ne Ousmane Ngom demal nga xool ci hôpitaux yi ñaata nit laa rey boobu xamuloon sax benn nit la dee vidéo yi ñu ngi fi moo ko boppam Ousmane Ngom ministre de l' intérieur demal nga xool ñaata nit laa rey vidéo yi ñu ngi YouTube mu ngi si internet bi bu ñu fàtte loolu moom moom bu boone rey na ay nit finalement ndeke benn nit a dee parce que amoon na ay blessé ñu yaakaaroon ne sax blessé yi dee nañ waaw ba ñu demee enquête def reconstitution des faits ne nu mu demee ñu gis ne ku mu rey ginnaaw la ko reyee loolu mooy kooku da doon daw ku ñëw pour xeex ak yow ëlbatiku di daw kooku kay waratoo jël fetal parce que foofu danger katu fa dañu wante dëgg loolu la ko tribunal tey sax ne parce que bu doon dama jàkkaarloog yow yore fetal nga dóor ma fetal sama dënn wala sama bët mooy dama def face ak yow doon la bëgg a rey nga rey ma légitime défense mais ma ñëw jàkkaarloog yow yore yet yow nga génneel fetel ma wan la ginnaaw daw waroo tiire si man déedéet tiiral ci kaw wala tiire si suuf comme daw na mais kii ñu faat ginnaaw lañ ko faatee léegi yenn naafeq yi nekk biir Sénégal ne ñoom choisir nañu kooku reykatu nit nga xam ne yàlla sunu borom lu mu wax boo reyee nit te tey ko sa kër ëllëg safara la kooku waru leen ko bëgg mais seen hypocrisie moo tax ngeen ñëw tey choisir ko dem ba di ko def ay maire de la ville dem ba di ko def tey assemblée nationale nit bu tekkiwul franc nit boo xam ne boo xoolee ay maamaati maamam du ñu Sénégal njaay original jógewuñu Fuuta jógewuñu Fatick jógewuñu euh, Casamance jógewuñu Tamba juddoowuñu dakaar dañoo ñëw ngeen préféré ay nit yu ñëw bëgg taal sunu Sénégal boo xam ne sunuy maam dañoo xeexoon ak maamu kii ñëw mooy hypocrite yi nekk ci sénégalais xamuñ fu ñuy taxaw lépp rek ndax mere nañu benn président ñuy def njombe moo tax nag ñun dañuy amaat suñu fulla ak suñu fayda ne lii ñuy gis muy raam jëm si ñag bi duñu ko nangu parce que bu fi tàqee tey ñun suñuy peut-être wàll lañ mu wëy suñu ay doom yi di ñëw ak suñu ay jarbaat ñooy dugg si góota bi ñooy dugg si góota bi musiba daf ñuy ñeel bu boobaa ñu jële ji beneen Guy Marius Sagna koo xam ne yaayam du sénégalais dam leen ngeen xool kooku it ngeen ñëw doomu bitim réew na mu ñëw bëgg yàq sunu Sénégal pour Sénégal nekkaat benn Nigéria Sénégal nekkaat benn Côte d'Ivoire Sénégal nekkaat benn Burkina Sénégal bi ñu xamoon Sénégal njaay ñëpp bëggante ñëpp joxante cër ñu ne loolu dañ ko fi bëgg a jëlee nañ jëlee ay nitu étranger yoo xam ne du duñu origine fii ci réew mi nañ leen jéem a jox réew mi nañ leen yóbbu assemblée quel gàcce tey bu ñu yeewoon Senghor ak nit yi nga xam ne bëgg nañu Sénégal xeex nañu drapeau Sénégal jaral leen perte seen bakkan ñu ne tey sénégalais yi ñoo préféré ay Guy Marius Sagna yu tekkiwul franc dugal leen ci assemblée nationale loolu déception la gàcce la musiba la ku sañ wax nag ñun dañuy wax parce que yàlla nattoo na nu ñuy wax ñu bëri bëgg nañu wax mais mënuñu wax mais lu Kaliphone di wax junni sénégalais ñu ngi koy wax sunu assemblée nationale bee. nga xam ne sunu ay maamaati maami maami maam dañoo xeex pour loolu am tey pour tubaab bi nañu abal ñu ñëw taxawal tey assemblée bi amul kenn kuñ fay dugal ku dul ay nit yu tekkiwul franc ay rebelle ay caga ay agresseur ay nit yu bon foofu la Sénégal tollu tey mais tamit gis nañu Barthélemy Diaz toog di xas journaliste yi gis nga tey gisu leen kenn ku bind si réseaux sociaux yi waa Corrède dañu war a wax ak waa Mamadou Ndiaye dañu war a wax déedéet mais bu doon benn nit ci waa mouvance présidentielle benn nit ci nguuru président Macky Sall moo génn ne woon journaliste yi da ngeen di naka sudul noonu ñu takk rajo yi naan nguur gi joxul cër journaliste yi maa ngi gis démb ci passation service Matar Ba ministre sport ay journaliste ñu ni ñoom Matar Ba dañ dugal seen i ay nit génne journaliste yi ñu cër journaliste yi gis nga ñu ngi koy kaas et pourtant Ousmane Sonko bés bu ne mu woo leen point de presse du leen tegal chaise du leen tegal fauteuil du leen teg fu am climatiseur si peron ngeen di toog di jonkon video yi ngi fi te kenn ci yéen naqarloo ko kenn si yéen ci journaliste Sénégal taxawul pointe doigt foofu ne Ousmane sonk lu tax mu yeb ñu en tant que ñun journaliste jàng ba jàng xewee xamuñu woon kuy Ousmane sonk muy ñëw tey di def point de presse mu waroon louer ay chaise déetawaay wala mu wut salle bu baax déetawaay dafa ñëw ba ay caméraman bu ñu taxawee ñun suma ay journaliste dañoo jonkan dañoo jonkan les images ñu ngi ci internet bi dama gis loolu dama rus parfois Ousmane sonk di génn nga dégg journaliste naan tonton Ousmane Sonko tonton Ousmane Sonko démb xaw ma barki démb démb ba Barthélémy Dias dem tribunal Ousmane Sonko di génn kër Barthélémy Dias xaw ma fan ay journaliste naan tonton Ousmane Sonko tonton Barthélémy Dias ngay dégg seeni ay micro Sénégal yàqu na ba mu doon président Macky Sall li mu leen doon jagleel par at wala par weer dama koy téye dama koy dagg ba ñu àndil ñu ay journalistes yu qualifié yu xam ak journalisme yoo xam ne bu ñuy revue de presse bu nguur defee nag sudul loolu ñu dal waaye bu opposition defee nag sudul loolu ñu dal waaye journaliste yoo xam ne seen revue de presse boo ko dégloo da nga yaakaar ne guerre moo am Sénégal journaliste yoo xamante ni mosoo dégg ñu wax si Ousmane Sonko te ay njombe yu dul jeex la fi def journaliste yoo xam ne sañu ñu wax Barthélemy Dias dara te ay njombe la fi def démb seetaan nañu émission Barthélemy Diaz muy fen bay gëm ay fenam muy fen gëm ay fenam bu Barthélemy Diaz demee ba naan foo député bi ñu jàpp keroog ci waa Benno Bokk Yaakaar la bokk te ñu gis si affiche u waa Yewwi seeni coalition waa ji toog foofu ak leelam ñu gis Ousmane Sonko fu mu toog di def point de presse waa ji toog si ginnaawam ñu gis waa ji en personne page Facebook am di naan jàppale leen waa yeewi ñu gis waa ji en personne def ay vidéo di naan jële leen fi Macky Sall Barthélemy Diaz manqué de respect sénégalais yi toog di fen sénégalais yi yéena ko def mooy liñ leen di wax ay nit yu xamul franc nit yi tekkiwul dërëm ngeen bëgg leen invité ci ay plateau télé parce que c'est Barthélemy Diaz